ak na ko ibnul qayim doon jàngalewaate ci beneen beneen téeréem ak ngëneelam ca doon wax waaye tam indi woon nañ tamit beneen murit bu ñuy wax abu xafs al bazaar moom itam mu nett li ak wërdu goo xam ne da koo jële woon ci al qutb ibnu tey jii nag dañ dem ci ab troisième murit beneen murit boo xam ne muritum ñetteel la bu ñuy wax ibnu abdul haadi moom nag na xam ne fonk na loolu al qutb ibnu taymiya te koo défendre moom itam nettali na ak wërd xam naa sax mel na ni ñaari wërd la na xam na ci koo xam ne booy dugg dina nga koy def waaye nag buñ limee genn gi rek mu doy xam naa yéen a koy seen ci page bi ma photo bi nga xam ne photo naa ko danaa ci nag ndax daa xaw a gudd waaye xëy na ko bëgg a mottali rek boo jàngee ko da ko mën a mottali sa bopp nee na daal euh, boo ñëwee euh, ci foofu nga xam ne moom ngay agsi euh, rawdu bi diggante xabru baak mën bar ba da ngay julli foofee ñaan la la neex boo defee loolu ba noppi nga ñëw ca nga nga nga ñëw fa eh, xibala nabi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee nga jàkkaarloog nag eh, miiru xabru bi waaye bu ko laal bu ko fóon yow daal na nga fexe ba sa bopp rek moom nekk fa fa làmp ba bu ko defee nag nga taxaw nee na nag da ngay taxaw ta da ngay xaw a sori itam comme ni nga xam ne bu yonent bi doon dund noonu ngay taxawee bu ko defee ànd ku ko ragal yàlla ku dal nee na nag da ngay jett sa bopp mu mun ak kisar mun ak kisar si nee na da ngay sëgal bopp bi ci jamono jooju xam naa nag boobu boobu kay fiyee moom bëgg naa gaa yi leeral ma ban xadis moo ko tegtale euh, bu ko defee nag euh, ginnaaw bi muy woy ba ne da nga naa euh, da ngay da ngay jàng foofu ne assalaamu aleyka ya rasulallahi wa rahmatullahi wa barakaatu assalaamu aleyka ya nabiyullah ya nabi ya nabiyallahi wa xayratahu min xalqih السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك نيان كو غود لا خما يين كو سين سي باج بي دوما من خاينا دو جار ماي ليم ليب ام نيان لا بو خما ني نيت كي كوي ري سغال ام فومي تول تخاو فوتو لامب باك booleeg baati ñaan ko gi yëg yu yëpp daal bëgg naa bàyyi tey mais yi nga xam ne ñoom moom bari na ci ñoo xam ne day mel dañ koo taqadis ñu indil ma ci firnde ak lu tax itam bu ñuy naqdu lu tax naqduwuñ bii loolu daal bëgg naa ñu ñu leeral ma ko